bàjjanu gox de Dieuppeul 3 moo taxoon mu bëgg a lancer appel sama moroom bàjjanu gox yi surtout laay waxal parce que combat bi ci suuf la commencé léegi la combat bi commencé te ñun ñoo ko war a porter ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nekk ak nit yi ñun ñoo nekk ak communauté bi donc en en communion avec la la communauté de la commune de Dieuppeul Derklé je voudrais faire un un appel lancer un appel si sama moroom bàjjanu gox yëpp yu yu yu Cité Marine yu yu yu Dieuppeul ensemble wu communauté de Dieuppeul Derklé bi yëpp ñi fi nekk bàjjanu gox yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi laan maa ngi leen di lancer appel wax leen ne comme ni ñu def nii tey ak association les amis de Dieuppeul ñoom tamit noonu la ñu war a def seen koñ pour que combat bi mun a mun a sotti parce que ku nekk daf ci war a jàpp. ñun nag surtout ñun les bàjjanu gox ñun ñoo war a gën a porter combat bi puisque ñun ñoo nekk directement en en contact avec la population loolu laa bëggoon wax.